xam nga jàngalekat dafa am solo ci am réew mu nekk nag euh, ci àdduna bi depuis 1966 bi UNESCO génnee benn recommandation di wax ci ni ndongo ni jàngalekat yi nekkee boobu ba léegi ñu ne kon dafay jaadu chaque année ñu organiser benn journée boo xam dañ koy jagleel jàngalekat yi feete leen jox leen seen dayoo jox leen seen wàccuwaay loolu mooy illay bis bi Euh, ñun nag si Sénégal yu jàpp ne waruñu yem rek si euh, maanaam gërëm jàngalekat bi euh, sant ko waaye dañu war a xalaat saa su nekk ànd si ñun ñëpp pour seet li nga xam ne mooy ñogal njàng mi rawatina nag ñaari at yi nga xam ne dañoo gis dafa am benn feebar bu bees bu ñëw si àdduna bi yëpp te mu am njeexital si njàng mi ñu ne kon war nañu seet ñun suñu système li nga xam ne mooy gàllankoor yi nga xam ne moom la feebar bi mbas mi indi ñu fexe ba waxtaane ko pour seet bis boo xamee ne beneen feebar ñëw na bu dul feebar bi tamit dinañ mën a taxaw ne jon jàmmaarloo ak moom te du ñu yàqal ñu continuer njàng bi parce que njàng moo yore am réew xam-xam moo yore am réew kon même feebar bu ñëwee war ñu dakkal njàng bi loolu mooy illay ñu organiser tey waxtaan wii su ngeen xoolee ne waxtaan dafa yaatu waxtaan wi ñi ngi xool nan la ñuy fexe ba ñoŋal lépp loo xam ne day indi wér-gi-yaram ci école bi lépp loo xam ne maanaam dafa jëm si lekk hygiène maanaam muy lekk muy gaanuwaay muy lépp ñu fexe ba nga xam ne dañ si waxtaanee nu ñu koy fexe ba nga xam ne du doon loo xam ne day mën a euh, euh, yokk feebar bi maanaam euh, école nekkatut jàngalekat kese ak ndongo daara bi ak tableau bi waaye école dafa nekk maanaam benn paquet package euh, package bi mooy ndox war na am mooy ay gaanuwaay war na am xale bi fi muy nekk war na am garab bu récréation jotee bu génnee mu am fu mu dalloo yooyu yëpp dafa bokk si li ñuy wax hygiène de l'école ñu waxtaanee aussi li nga xam ne gis nañ ni tey xëy na ministère yi def nañ si ay jéego yu am solo muy njàngu bu feebar amee nit ñi toog seen kër ñu mën a continuer njàng mi gis nañ ne def nañ ci ay jéego waaye du tee war nañ ko mën a waxtaanee pour xool jéego yooyu nan lañ koy yokkee. ndax du réew mi yëpp ñoo am électricité te gis nañ ne pour mu am connexion njàng mi continuer il faut mu am électricité est-ce que mënuñu trouver un système boo xam ne ki nga xam ne aussi nekk na foo xam ne amul électricité ñu mën ko jox jumtukaay loo xam ne moom moom ak ki nekk ndakaaru ñooy yem parce que ñun ñëpp ñoo yem si réew mi yooyu nag ci la ñuy xalaat euh, waxtaan bi ñu ngi koy ubbi bu ñu waxtaanee ba pare nag lépp luñ fi tënk dinañ ko jël jébbal ko ñi nga xam ne ñoom ñoo yore dogal bi ñu seet ñoom li nga xam ne man nañ ko ñu def ko li nga xam ne mënuñu ko xëy na ñu euh, waajal ko pour beneen yoon ñu ba ñu bàyyi si xel. thank you